تحيات كل بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور وجعت كل بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور رسول الله قام dégg li دفلي ñu دفلي مويو li nga defal Serigne Touba moo tax ñu defal la lii mawlana faratuna mbokk Touba mbokk Sénégal maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziar bu am fumu mu tàmbale te amul fu mu yem di ko teg ci loxo yu tedd yu sunu sëriñ sëriñ Sidi Mbakke Cheikh Abdoul Ahad ngir nga jottalil ma nuyoo yooyu ak ziyaara boobu ak cant googu nga jottalil ma ko sunu xalif général di sunu sëriñ di sunu wayjur Cheikh Muntaxa Bachir Mbacké xalif général des Mourides. ma la sëriñ bi ne la oto bi yóbbu ma ñëw fekk si la nga ne ma déedéet dañuy ànd dox te xawoon na xëcc lool loolu li muy wone mooy sa taxawaay ak sa yéene boo xam ne yaa ngi ko jële ci ndigalu xalif général sëriñ Mountakha Mbàkke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér maa ngi nuyu njabootu Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul di fi teew yëpp ci ndigalu ak woote xalif général di nuyu di gërëm njabootu maam Cheikh Ibra Fall ñoom it xalif bi woote na njaboot gi yëpp ñëw nañu toog di nuyu mbokku taalibe yi di nuyu mbokk Sénégal di nuyu sa rakk ju baax ji wax léegi ci sa tour ak ci turu xalif général muy Serigne Bassirou Mbacké di ko sant bu baax moom sëñ Bassirou bu di gi di Touba di wax jërëjëf sëriñ Touba waaye di waxaat jërëjëfati sëriñ Touba ndax du lu yomb li ñu dajale fii tey du lu yomb ndax projet la boo xam ni yéene moo ko lal te yéene ji mu ngi sukkandeku ci xam dayoo ak tolluwaayu Touba ci biir Sénégal xam àq bi nga xam ni war na am ci suñu diggante ak tuuba sëñ Touba sànc ko wax nga ko fi léegi def ay digle santaane lu bare te ñu xam ne lépp dina ñëw kon nag li tax may sant mooy bi ma suñu borom xiiree ci tracé projet bu toll nii mu jàppale ma ci kàttanam ak si ñaanu bi may di gërëm te ñuy ñaan suñu borom yokku leer sëriñ Sidi Moxtaar Mbakke ndax bañ koy taxawal ak sëñ Muntaxa bii tey def ñaan yi bay sëriñ Muntaxa mu yeggali waxtaan wi kon seeni ñaan yoyu bokk na ci liñu katanal ndax projet 416 milliards du lu yomb waaye bind projet bi wut alal ju toll noonu am ko tàmbali liggéey bi mottali ko réceptionné ko loolu ndimbalu yàlla moo ci dugg ak ngërëmal sëñ Touba kon nag loolu tax ma sant bu baax a baax ndax euh, wax dëgg yàlla projet bu am solo la te it danaa si ñëwaat léegi sama discours ci nasaraan ndax euh, dafa am lu ko tracé dafa am lu bare bare lu ñu tàmbali ci Touba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 ci Tuba. Touba. mooy Ila Touba du rek autoroute Waye dafa nekk autoroute bo, xamne biñ koy liggéey dañ ci dexeñ ay xarala yu bes yu tax yoon wi yëpp am ay caméra télévision yu koy filmer ba tax lu xew ci yoon bi dañu xam fan la su jafe-jafe amee dañ ko mun repérer liggéey ko liggéey bu am solo Ila Touba am na aussi ay post yoo xam ni ak bërëbu noppalukaay muy ñaar ci wetu Bambey am na ay yoon yoo xam ni lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk dañ ko ubbi ngir jur gi wala doomu aadama yi mën di ci jaar bañ di traverser autoroute maa ngi ñaan sëriñ bi mu joxe ndigal si ñu moytu di dagg grillage yi ñu ngi doon xalaat sax ndax duñ ci def courant du nekk nag courant buy buy reye wala buy gaañe waaye dana tax boo ko laalee di nga teggi sa loxo pour ñu bañ di dagg grillage bi ndax bu ñu daggee grillage bi jur gi dana jaar jur gi dana si jaar te bu si jaaree dana yéeg ci tali bi te ku wax autoroute xam ne ay xel lañ ci daw te loolu dana indi ay musiba ak ay lor kon suñu amee autorite yu mel nii nag dañu war a changer tam suñu ay comportement ak suñu façon nu ñuy dawalee suñu façon nu ñu war a nekkee ci kaw tali bi loolu dafa am solo waaye yoon bi dañ xam nañ ne Touba la fay dem rëy na lool autoroute bi lu mu bees bees lu mu gaaw gaaw xam naa ni fii ak at yu néew Ila Touba dana fees dell kon prévoir nañu nu ñu ko yaatalee au lieu mu deux fois deux ci kanam bu ko trafic bi laajee dinañ ko mën def deux fois trois voies moy yoon bu né ñett ligne di ci dem ñett ligne di si dellu si loolu yëpp boole nañ ko ci liggéey bi li motax nak pour que autoroute bi nekk autoroute bu bess bu muccu ayib dañuy recommander usagers yi ñuy wut carte su ko defee ku ci am carte doto taxaw di fay ak di jël ay weccet carte boobu dañ ko bëgg tuddé carte xéewal muy bo xam moy def diggante AIBD bi Touba pour 3000 francs dana yombal liggéey bi donc ci kàddu yoyu la bëggoon wax tey jii la ubbi Ila Touba officiellement à la circulation kon jërëjëfati Serigne Touba ma ngi leen di sante di leen gërëm wa salam jaatu kulli bihamdin hamdin wa shukur.